Cissé moo leen nuyu yéen ñëpp seen ak seen sant. mi bi nee mi ngi nuyu mbooloo mi kilifa yi. ñi jiite mbooloo yëpp. moom li ñu waroon rek. mooy ñaan. mooy ñaan. dem. parce que wax ji jarbaatam alaaji jaañ si mbeng wax na ko suñu meer suñu doom alaaji ndooy baan wax na ko alaaji asan gay wax na ko tey nag dina wax lu mu musul wax ci élection. lan la mus la wax ci élection. la wax ci élection. dugal leen fii xob wi. dugal leen fii xob wi. nee na musu koo wax. nee na yéen a ko seede. tey nag nee tey nag nee na. xob wi nañ ko dugal nañ ko dugal. fi ko alaaji ndoy baan soxla. fi mu ko bëggee. mooy mooy bopp fas wi. wax nañ ko démb. wax nañ ko démb. ci gàmmu gi ci gàmmu gi. dafa am yoo xamante ni. dafa am yoo xamante ni. ñun luñ ko bëgg bëgg. ñun luñ ko bëgg mën a wax. ndax dama dégg ñu ne ndey ji seex. dafa dégg ñu ne ndey ji seex. dafay tëdd njaaxaanaay. dafay waaye nag lu mu tëdd tëdd njaaxaanaay. batt bi. am na ñun ko yéene. tey jii nag. élection yii. élection batt bi. mi ko yéene. coalition bii. Benno Bokk Yaakaar. moom la ko yéene. sëriñ bi nee na moo ko wax tey. moo ko wax ëllëg. wala xawfun alayhi. wala wala hum yuxsanuun. wala hum yuxsanuun. suñu borom tabaaraka wa taala suñu borom tabaaraka wa moo wax ne am na ñoo xamante ni. moo wax ne am na ñoo xam ni. daf leen a tànn. daf leen a tànn. duñu ragal duñu ragal. duñu tiit duñu tiit. jaaxle. moom nag yaakaar moom nag yaakaar na ne ci ñooñ la bokk. incha allahu taala. yal na ko yàlla saxal jërëjëf. bu ma neexoon. na bu ko neexoon. dafay tëdd fee ca wax jarbaatam ñii Mamadou Diagne Sy Mbengue ni ko demal nga recevoir waxtaan ak ñoom mu doy waaye dafa ñëw nag pour wettali ko ñu ni ñi ngi koy dégg ñun ñi nee na man Mansour mi nga xam ne moom lañ ma tuddee maa ngi koy dégg Moustapha bu sëñ Maodo nga nee mi ngi koy dégg sama baay xalifa ñëwoon na sànq mi ngi koy dégg. maam Abdou. maam mi ngi nii toog. ñun la yónni. jóg leen dugg leen wax leen xob wi nañ ko dugal fi keesu bennoo bokk yaakaar. xoolal bennoo gis nga bennoo gis nga bennoo turam wii. dafa nax nit ñi. dafa nax nit ñi. waxtasimu bi abdillahi jamii'an wala tafarraqu. wallaahi. yàlla moo ni mooy leen ci sama. buum yàlla moo ni mooy leen ci sama buum gi. te bu leen tàqali te bu leen tàqali ko. bennoo nag bennoo nag. mooy bennoo rek. xam nga Sénégal li ñu dal lépp lan moo ñu ko yóbbee. xam nga Sénégal li ñu dal lépp lan moo ñu ko yóbbee. tàqali ko ko rek. waaye bis bu nu waaye bis bu nu àndee nekk benn. Sénégal day taw or day taw or. dina taw pétrole dina taw gaz dina taw bépp xéewal kon nag li mu waxoon rek bu muy bu yemoon ci ñi jël kàddu rek doyoon na sëkk waaye nag nee na lépp signature na ko dafa am dafa signé nag kàddu yu fi jub yëpp maa ngi maa ngi yóbbante soxna kenn ci rakkam sëriñ Sidi Mbacke. boo demee nga ni ko. sa mag nee na. woote bii. xob wi. nañ ko def ci kees gi. ci benn kees gi mooy benn Bokk Yaakaar benn rek. te wax fii te wax na fii te booba kenn toogul. kenn kenn. kenn toogu fi kenn kenn toogu fi. dama ni fitam. ak dëgëraayam. lu ci ëpp ci sën la bàyyi ko bu ma fi diiroon mbagg dina xat waaye moom moo jëkk a déclaré waaye magam maay kilifaam maay xalifaam kon bu ko neexee wëndeelu yóbbante la nag ci sëriñ bi boo demee na nga ko wax lool ni ko sa mag nee na. benn bunt bi rek la. xob bi na dugg ci bennoo bokk yaakaar. parce que yaakaar ji dafa bari. parce dafa bari. fa tabaarakallaahu. sëriñ Assane Ndiaye mii nag. Eh, seen gisee bariwul. fi mu ne bu ko gisoon ci boutique. fi mu du ko xàmmee. du waaye loxoom. xàmmee na ko bu baax. xam na lim ko wax mu ni moo parent moom moom mooy moom mooy man mooy léppam moom tamit bokk na ci ñi ko fi ñi ma fital ñi ko fital ñi ma jox fit ñi ko jox fit nee na moo parent bokk na ci Serigne Moustapha Cissé bi mu génnee àdduna moo parent la toogal fii mu ñëw ni ko problème amoon na. problème amoon na. junj doy na boroom xel. junj problème boobu nag. boo bëggee mu deñ. boo bëggee mu deñ. defal nii defal nii defal nii defal nii defal nii. noonu mu waxoon. noonu mu waxoon. mu jaar ca. ba mu ca jaaree. ci la ngëbe pir. ci loxoom. pir gépp nag. pir gépp la wax nag. nee naa leen nii. dafa fekk nag. dafa fekk nag. problème mu élection moom. problème mu élection beneen affaire la. yàlla rek. yàlla rek. moo ciy dugg moo ciy dugg. def dogalam def dogalam. def la ko neex waaye beneen affaire la waaye bu du woon loolu dama naan pire lu ma leen ñaan ñu may ko ko te ba léegi jógu ci insha allahu taala temps bi mu wootee fii bi élection yële di jub si. pour mbir mi nekk benn. pour bëgg opposition bi fi nekkoon yëpp. opposition bi fi nekkoon ma loo ñu wax ñu def. loo ñu wax rek ñu def ko. doy loolu doy na. même bu ay nax. même bu dee ay nax. alhamdulilah léegi nag léegi nag. bu mu nekk nax nax. na nekk dëgg lii daal lii daal. laa leen doon tertoo moom Seynabou Gueye Seynabou Gueye Adja Seynabou ci sa barke baay bi mu jëlee ci sëñ Babacar bi ci sëñ Babacar na la wallu yàlla na leen wallu ba may leen ndam ku déggul ku xamul kudd yu gay ku xamul kudd yu gay kudd yu gay alaaji dégg na ko ku ne na ku ku ne xam na. position ci sëriñ Babacar si. ump la yow mii jaay si. ump ndax doomu Tiwaawan nga. malgré doomu Pire nga. waaye doomu Tiwaawan nga. yàlla ak barkeem. ak barke gaa yu baax yi. yàlla nañu wollu. ba ndam li ñu bëgg. yàlla defal ñu ko. lii daal. waaw dëgg parenthèse na sa baay yàgg na fi lool. yàlla ngeen fi yàgg lu ko ëpp. ak équipe bi yëpp ak président ci boppam. lii daal laa doon wax ni. teg seen loxo. bu fi kenn jógee nag. bu fi kenn jógee nag. naan sëñ bi waxuma dara. sëñ bi waxuma dara. wax na de. waaw jërëjëf jëf